وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يسمعون الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض الحمد مطلحا لذات الباري ثم سلامنا على المختار وصلاة وسلام على أشرف المرسلين سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم doomu aadama yàlla da koo teral mu nekk ci teraanga dafa judd rek nekk doomu aadama ci la teraanga tàmbalee ci moom yàlla def ñu ñii ay nit ñoo xam ne lépp yi teraanga ñeel nañu wala xadd karam naa bani adama yàlla moo ñu ne moo ñu diggal ni bu ñu bëggee jamono ju nekk mu duñu yokk nañuy sant la in sakartum la azidannakum te nag nit mënoo sant ku la dafalul wa ma la yaskuru naasa la yaskurullah ñun nag Cheikh Ibrahim Niass moo ñu jëlee suñu askani baay ak suñu askani yaay ak suñu xeet indi ñu xeetam gi moom solo ñu mbaxane yu rafet yii solo ñu jasineer yu rafet yi tereel ñu jox ñu teraanga àdduna ak alaaxira te bàyyi moomu nag moo ñu diggoon ni képp ku ko bëgg képp ku ko xitmaal wa man yuhibbu nii wa man yaraa nii fi jannatil xuldi bila buxdaani is anani xalifatu tijaani mawhibatan min al ahmadu adnaani kon nag kooku laa bëgg ni bu ñu gëmee ne jamono ji ñu toll zamanu bii benn yërmande yàlla moo fi des loxo yàlla bi mooy Cheikh Ibrahima Niass nee na fa inni rahmaniyatullahi inda man yuhibbu wan naaru li taridil mujadil man maa yërmande yàlla bi ci képp ku bëgg mooy jëriñ moom Cheikh Ibrahima maay safara yi kii mbugal ñu noonu jëmmi yàlla ji kooku laa bëgg na ñun ñëpp ñu nangu ne moo gën ci yàlla bind moom moo feeñ feeñal ci yàlla feeñal mooy taaru àdduna ak àllaaxira mooy feeñu waay yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam falaw sawruni fii xaqiqati lam yaraw si waa sax si mahbubin bii natamattahu ma ne nag li may bëgg wax képp ku ko wax ni ko waxe ni mu gën a jugee yàlla yëkkate noonu say mbir wax leen jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee yaa ko moom ku mu neex neel réew mi yaa moom ku mu neex neel sa sëriñ neel moom moom réew mi sa mbëggeel ak sa tolluwaay waaye dama ni ki moom réew yi waxuma réew mi de réew mi dafa tuuti réew mi Sénégal moo gën a tuuti ci Afrique dafa ndaw dama ne ki moom réew yi mboolem réew yi ki leen moom mooy Cheikh Ibrahima Niass wax leen jërëjëfee Baye Niass باي موي اول باي موي اخر ما مخبر مو فيما باي موي زاير باي موي باطن لا مخبر مو فيما محمد والله ترى فيما لا مخبر مو فيما مني Baye Niass moom moom réew yi te gis nga Baye Niass nag li ma di tax ni moom moom réew yi ay taalibeem demuñu ci benn dëkk samp fa daayira doomu réew ña ña dëkk ci réew ña ñoo samp daare te naan barxaama barxaama barxaama dama ni Cheikh Ibrahim dafa dugal loxoom ci bool bi loxoom yu rëy yi ba mu tibbee bool bi ngëpp ko ci loxoom mu des pepp yi ci ginnaaw loxo bi xam nga ni bool la ca biir loxo bi moom kenn waxatu muy mar benn benn te ne nañ li ci ginnaaw loxo bi duna ci loolu mooy lan mooy Cheikh Ibrahim dafa takk adduna bi yëpp téye ci benn loxoom mu dee senegal mu takk ci loxo mi mu koy mar par benn benn dama ne képp ku ngeen fiy dégg ak ay way jëm ci moom képp ku ngeen fi mën a dégg ak ku mën a doon ñu di ko mënul di ko yëkkati jam ci moom képp ku ngeen fi dégg ak ku mën a doon muy wax am na ay may ci runt bi su dul Cheikh Ibrahim Niass benn may du taxaw ci loxoom min nii nawaalul kulli wal kulli manaanihi Cheikh Ibrahim Baay Ñas nee na mboolum góor ñi ngeen di dégg fii ñoom ñëpp maa leen may man Cheikh Ibrahim bismillah imay mbëggewal janta diina leer ga ca kaw diina man teewul ca këram moo de say bi bismillah darja ca kaw diina manke wul ca këram wax de Seydi Barhama abonnement yëpp ca gën xam nga mooy abonné jamono kuy doxal jamono ji tey wax de Seydi Barhama doxal jamono ji tey wax de Seydi moo tax nag Cheikh Ibrahim moomu guddi gii guddi gii la Baye Fall utal ay ndënd yu bari nga tëgg tey guddi Cheikh Ibrahima la tëggal ba mu neex la guddi Cheikh Ibrahima Niass la tey mani Cheikh Ibrahima Niass moomu nag nee na anu maag ragal Cheikh Ibrahima nee na ragal anu barum fit bii lox anu kuy sikki sàkka man jàmbaar laa àndal ma ne wax leen jërëjëfee Baye Niass laa wax Barahama tëkkaleeg sa sëriñ nañ teg ñaari footo yi rek ñu xool sori wut de ma ne kuy tëkkaleeg bàññis ak keneen bu mu sori na indi photo sëriñam nga teg Cheikh Ibrahim Niass tege rek nga xool bàyyi nee na bañu ma a ma tëkkaleeg sa sëriñ waaye na taxaw rek ma taxaw olof nee na ku sut nee ko njool ñi dama Ibrahim Baay Ñas ba muy tukki boobu sëriñ si xamuñu lan la avion mel ba ñuy tukki bàñes ñun Cheikh Ibrahima Niass daf ñoo doy sëkk sëkk sëkk bàyyi doy nañu sëkk ku sa bët bi tegu ci bàyyi ku xasa xam bàyyi ku xas a dund bàyyi ku àgg ci bàyyi dootoo soxla leneen lu dul Cheikh Ibrahima Niass xool ko rek kaalam gi xaa un la xoolal rek ci mbir ci mbir ji laam-laam la loxoo ñeel na kan jëmm yàlla ji Cheikh Ibrahima ko bëtam yi jëkk kaala ratal faas bi dafa juddala ne alhamdulillahi nasatu tahira maa xultu faxran nattatu zakira moom dafa judd rek laab Cheikh Ibrahim dafa judd rek laab laab ci zahir laab ci baatin ku dul nag ku dul bàñes rek ba nga juddoo am na lu topp ci yow ngay dabaatal di dabaatal di dabaatal ba keroog bu feebar ku dul Cheikh Ibrahim bàyyi rek moo judd laab bàyyi rek moo judd dara topp ko Cheikh Ibrahim Niass kii mooy sabatag jamono ji ku ko yaakaar texe ku ko bëgg texe ku ko xam dootoo xam keneen ku ko am dooto am leneen yaakaar yi jaam ñaa ngi nii saalum saalum baa ngi nii doole yonent Yàlla Muhammad mi ngi nii doole Cheikhina Ahmad Tidiane mi ngi nii il est beau il est gentil la jantal maara Cheikh Ibrahim Niass وربك سم كرسي कार guddi na waaye guddi wut waaye nag guddi na te am na ñoo xam ne xaal bi neex na waaye dëgg-dëgg nag am na lu leen xaar te buñ ko toppee nii du jeex mukk ndax fa muy jugee du fa jeex fañ ko sotti du fa fees kookee Cheikh Ibrahim moo tax nag maa ngi ndokkeel tey bis bii nga xam ne bis bii nga xam ne tey bu taaroo tey bu taaroo mel ñi mel nga gis taar bi nga xam ne kenn taarul ko lu dul xaadimu Cheikh Ibrahim yi lu dul zakirul kabir yi jotaay bi tey jotaay sant Maolana Cheikh Ibrahim Niass la man su may sant baay laay sant maa ngi gërëm Cheikh Ibrahim baay mi nga xam ne mooy joxe te li muy joxe du laaj du laaj te bu lay jox du la laaj te su jox doo xam lim lay jox te bu la ko joxee doo ko attan mooy Cheikh Ibrahim Niass man kooku laa gëm mooy sama dund gii te mooy sama àllaaxira kooku ma gënal sama ndey gënal ma sama baay gënal ma yaay ak doom ak jabar Cheikh Ibrahim moomu tey buñ ñëwoon tey ku ko tudd ñu rendi la guddi gii sama sama bàmmeel lañ koy gas xotti ko dugal na ci biir Cheikh Ibrahim Niass doyloo ko tey doyloo naa ko suba du ma ci rikkile te du ma ci puus ragalu ma ci borom kurus borom xaatim ragalu ma ci ku may tëkku ku may jéem a xoqatal ci Cheikh Ibrahim Niass bàyyi moo sama bakkan bii sama dund gi yàlla yor ko Cheikh Ibrahim Niass maa ko yor sama bakkan bii bu doon damay dee dee naa keroog bañ fexe yi dajee ñu def la ñuy def ma dem ci corniche ba oto bay xalangu ma dugg ci autoroute ba keroog Cheikh Ibrahim moo téye sama roo ba ma duggee ci oto ba ña ko bokkaloon ñëpp ñëpp xam nañ ni benn ba baat la wax naan jërëjëfee Cheikh Ibrahim Niass oto ba daw këpp xalangu jaaxaan porte yi benn porte ba tijjeeku oto bi dañ ko sérité woon takkul pëndul xoosu dara xew ma génn ci oto ba tëdd génn sapeur pompier yi ñëw ku ñaan Jibril keroog la nekk taalibe Cheikh Ibrahim ba tey ne ma sëriñ bi ma ne ko naam mu ne ma accident bu mësa am ni ku ci mësa am dee nga yéen ñiy bàyyi si moo leen garanti bis ni ko tey taalibe Cheikh Ibrahim laa gàbbu googu moo waraloon sapeur yi ñëw daf fii rang dafa fi garanti consultation gratuite xara fa ay xale ngir Mawlana Cheikh Ibrahim Niass ginnaaw nag foofu ñu ma pexaloon bàyyi reyu ma su may dee Cheikh Ibrahim Niass moo may rey moo tax du ma ragal ci bàyyi du ma du ma mënoo maa ko xotal te mënoo maa tiital fi ma bëgg a dem ci bàyyi kenn mënu a tee dem ci Cheikh Ibrahim dem ci bàyyi tey dem ci bàyyi suba dem ci bàyyi suba ginnaaw suba kii sama garanti mooy Cheikh Baye Mamoun Abdou Bazar Wayat wax leen jërëjëfee Baye ma ñëpp wa amma bi nihmati rabbika fa hadis Cheikh Ibrahim Baye Mamoun rek lay gërëm man sama ndigg lii kii moo ko attan kii laa doyloo man kii laa gërëm ndax kii laa gis ci moom Cheikh Ibrahim daray bakkan ànd ak Cheikh Baye Mamoun Ibrahima Niass kii moo doon Mawlana Cheikh Ibrahim ci mazhar bi ci xam-xam bi ci tabe bi ci laab gi ci yërmande gi ci kàttan gi ci fit gi ci njàmbaar gi Cheikh Ibrahim Mamoune Abdou Mazharou Zaati mi ngi def jawlu di tànnal faydu bi ak islam bi yàlla yàlla mottalil ko jawlu bi ci barki Mawlana Cheikh Ibrahim bis bi tey dafa am ñu ngi ko jaglele ñu suñuy soppe ñoom ñëpp mbëggeel ci yàlla ak xarit ci yàlla àndandoo ci Cheikh Ibrahim bëgg Cheikh Ibrahim lii moo tax tey ma tudde leen guddi Mawlana Cheikh Ibrahim bi tudde naa ko tey ki nekk sama ndeyjoor muy Cheikh Abdou Karim Kabir nga xam ne ku baax a ngi nii ci ñu ko xam ku laa biir a ngi nii ci ñu ko xam ku bëgg Cheikh Ibrahim Niass na ngi nii ku yàgg xitmaal Cheikh Ibrahim nag kii nekkul jikkarkatu tey jii ba zikkar jafe ba mu wéetee jamonoy Kóosi Dakar jamonoy Baye Jànka ca cité ya du tey de loolu yàgg na de muy xuus ci mbëggeelam ci Cheikh Ibrahima Niass baa ngi tey fii mu agsi yàlla na bàyyi fayante ak yow muy sama xarit di sama soppe man ku ma bëgg bàyyi saa laa la bëggee man dara dérange wu ma xaddaxaani maa daxaani man bàyyi rek moo ma jommal kenn dérange ma ku du Cheikh Ibrahima waaye kii moom dafa bokk ci man ma tuddee ko bis bii tey ngir Mawlana Cheikh Ibrahim teew na ko ak ñun marhaban bikum tuddee naa ko sama xarit sama soppe ku bëgg Mawlana Cheikh Ibrahim ku jeex ci Mawlana Cheikh Ibrahim muy Cheikh ma jële Zakirul Kabir ma jële ñaan liggéeykatu bàññees bu mag bi xaadimu Cheikh Ibrahim bu mag bii xaadimu Cheikh Baye Mamoun bu mag bii li ma gën a neex ci moom day kennal Cheikh Ibrahima Niass baytu bàyyi mu mokkal ko lool lool lool di ko jàng ci jàngin boo xam ne bu sa xol bi amul virus bu yëkkatee la da nga ko yëg ndax li muy wax ci xol bi la koy tibbee mu nekkaat sama xarit beneen yoon ñu bokk Cheikh Baye Mamoun Abdou Mazar Zaati ma jàppaat ko kóllëre foofu benn teew ko tey ma tuddee ko bis bii ngir mbëggeelam ci Cheikh Ibrahim ngir mbëggeelam ci Cheikh Baye Mamoun Abdou Mazar Zaati ñu gis la ngay liggéey liggéey bu rëy ci feetu Cheikh Ibrahim di def ay jotaay di xuus ngi gis ngay def ay waxtaan yu am solo di kennal Mawlana Cheikh Ibrahim te man bàyyi ku koy bokkaale rek man képp kuy bokkaale Cheikh Ibrahim nag dama lay puus man parce que man gëm naa ni bàyyi amul kenn kuñ koy dandeel ci zamaanu amul kenn kuñ koy méngaleel ci zamaanu ndax bàyyi tolluwut ak kenn ngay jëmmal loolu Cheikh ma jële Zakirul Kabir maa ngi lay ndokkeel beneen yoon teew na ko sama xarit sama soppe xaadimu Cheikh Ibrahim te billaahi ñi ma ko tuddee du enveloppe ba tax man sama enveloppe mooy Mawlana Cheikh Ibrahima Niass sama pantre bii laay toog ma génnuma dewuma fenn lu ma bëgg foofu la may fekk ku mën rek defal baa gis rek ñoo koy liggéeyal mu ñuy jox ñi lekk dañu jox ñu naan allazina yuqaddimu ni naaru muraduhum sahaadatan wa maalum fekk la fa teral la jox la lu jomb ñoo xam ne ay fajar la ñuy xëy di ko jaabante di dem di ñëw mu teleen Cheikh Ibrahima jox ko ci ay seconde bëgg bàyyi wóor Cheikh Thierno ku bëgg Cheikh Ibrahima Niass mi ngi nii te gis nga mbir mi du dara bëgg Cheikh Ibrahima Niass la du daara lu doon maxabbatu Cheikh Ibrahima maqaame yi li ñuy gën a kawante mooy bëgg Mawlana Cheikh Ibrahima Niass muy yéegikaay bu gaaw bi soo bëggee àgg rek bëggal Cheikh Ibrahima te kuy dund nag te mu jaral la na nga ci nangu wét nag ndax nattu yi ak jalaal yi danay ñëw waaye boo ko gëmee boo ko xusee rek li ci gënaaw loolu ay jamaal lay doon ndax jalaal jamaal kamal baax na yooyu foog danga ko jéggi waaye ku bëgg Cheikh Ibrahima Cheikh sama xarit ku baax ndaw lii ndawul Cheikh Ibrahima la ma tuddee ko ko ngir Mawlana Cheikh Ibrahima sama doom tuddee ko ko ma kontaan ci lool maa ngi lay ndokkeel Cheikh Thierno tuddee naa ko sama xarit sama soppe Cheikh Mouhamad Nazir Cheikh Mouhamad Nazir ñu bëri xamuñu ko ndaw yi bëgg nañ Baay Ñas de ñii billaahi barik lañ bëgg seen dund gi yëpp dañ ko sacrifié jox ko Cheikh Ibrahim kii ci la bokk dundin gi yëpp bàyyi la ko jox amul lu mu xamul ci feddu Cheikh Mouhamad Nazir mi ngay gis xam Medina xam ruq yi xam fu ne waaye bëgg Cheikh Ibrahim di xitmaal sëriñam jas jotaay boo dem fekk ko fa suba ak ngoon mi jël xaalisam di paas ay taxi di dem di ñëw bàyyi jabar bàyyi doom bàyyi nelaw bàyyi lépp ngir Cheikh Ibrahim xam nga loolu kuñ ko tuddee ba nga Cheikh Ibrahim ndeysaan tuddee naa ko ndax sama xarit la bu yàq jotaay bi nag duggee foofu danga ma yàqal naa ko ko sama xarit tuddee naa ko sama xarit sama soppe ñu yàgg lool Cheikh Aboubacar Sylla mi ngi nii ñu yàgg trop mu nekk borom xam-xam nekk ku bëgg a bàyyi ñes nekk ku jeex ci Cheikh Ibrahim di kennal Cheikh Ibrahim Aboubacar Sylla di sama xarit di sama soppe di ku baax di ma seet si ñuy toog suba ba ngoon ci nekk di waxtaan ci yàlla yàlla rek moo ko ñor bàyyi rek moo ko ñor xam-xam rek moo ko ñor maa leen lay ndokkeel Seydi nee naa bis bi ku ma ko tuddee sama xarit nga su doon xaalis la xam naa fi may jaar kon da ngeen xam ne aawla bi danañ tuuru fii waaye Cheikh Ibrahim Niass lay ndokkelee man tuddee naa ko ko bis bii tey tuddee naa ko sama xarit sama soppe Cheikh Ibrahima Ka Zakirul Kabir ci ci démb faydu la du tay de fa tax dara yëngalu ko moom parce que dafa fekkee démb xam tey di xaar suba waa ji ngeen di gis këpp la ku bëgg Cheikh Ibrahima Niass mu ngi nii Cheikh Ibrahima Ka bu ngeen demee géej waaye bu ngeen laajee Cheikh Ibrahima Ka rek kenn du ko laajte ci pays bi ñëpp xam nañ ko muy xitmaal Cheikh Ibrahim ñas waa ji ngay gis bëgg Cheikh Ibrahim Niass dundum yëpp Cheikh Ibrahim la Cheikh Ibrahim Ka sëriñ bi yal na yàlla taral la ci barke Cheikh Ibrahim mu tuddee ku ko rek ngeen Mawlana Cheikh Ibrahim tuddee naa ko ko xam naa di ngeen ne ñi ma ko tuddee bari na déedéet bis bee ma ñor ma woo samay soppe yëpp jox leen ko loolu rek la waaye du dara kon tuddee naa ko Cheikh Amadou Cheikh Amadou mii di muqaddamu Cheikhul Xayri Cheikh Omar Diop ku bëgg Cheikh Ibrahima mi ngi ne Cheikh Amadou gaa yi bëgg bàyyi ne ko ñoo xam dafa mel ni nag yonent yi cent vingt quatre mille prophètes yonent yi ñoo ñëw trois cent treize ñoo génn ahlu badar ulul as bi juróom génn ñii dañoo siiw ñii kenn xamu leen amaa nag ñi ñu xamul sax ñoo gën a garaaw ñi siiw muqaddam yi noonu la mel nga gis koo xam ne kurus la yor di ci xëy suba ngoon nga xool ko du def conférence waxtaan nga yaakaar ne amul xaal wala nga yaakaar ne amul seet yàlla dëggal tànkam bi xool bis boo dëggee tànk bi xam ne kii borom maqaama la ci yàlla dundam yëpp Cheikh Ibrahima Niass la Cheikh Amadou bi ngi fii Fatalaak di fa kennal Cheikh Ibrahima ñu ngi leen dookeel waaye teew nañ ko nag sama soppi yëpp nañ fii tey Cheikh maa leen di présenté dama ko waroon njëkkee waaye njëkkee ko sax mooy mujjee ko mujjee ko moo njëkkee ko muy deretu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass muy Cheikh Mouhamed Niass. deretu Mawlana Cheikh Ibrahim ku wax xam xam ko ak man muy ku bëgg Cheikh Ibrahim maamam mi ngi nii bàyyi ko ba Medina ngir jotaay bi te da ko gis rek ma publier ko mu ne ma sëriñ bi jotaay bi kan ma bañoon ko fenn mu ne ma danaa ci teew ndax yàlla ndax ko la te dara ñu ko lu Cheikh Ibrahim Seydi wa Mawlaaya ñes kumba ñu ngi lay dalal di la wàccee sa wàccuwaay teew na ko président cercle jeune des talibés Baye Cheikh Mouhamad mi ngi nii teew nga Cheikh Ousmane xaadimu Cheikh Baye Mamour Niass baraxamis bi Baye rek la bëgg internet bi ku laal Baye mu dal sa kaw défendre Baye ci lim mën ci lim xam yal na yàlla dimbalal yaa rabbi ndeysaan Seydou Omar gaa ñu bëgg Baye si seen kanam yi da gi ko gis Cheikh Ibrahim ndeysaan mu Cheikhul Xeer yi Cheikh Habib Diop Seydi maa ngi lay nuyu maa ngi lay seet maa ngi lay ziar miin balay wal soppante nañu man ak moom dama koy gis ci lu bari am naa sax numéro am xëy na tur bi rek waaye mbëggeel gu opp rek la maa ngi lay ziar nekk nit nekk nitu kóllëre ku bëgg Cheikh Ibrahim ñu ngi koy gis muy défendre Cheikh Ibrahim ci xam-xam muy ànd ak Fallou mu Cheikh mu Cheikhul Xeer ñu ngi koy topp bu baax di xaritu Cheikh Madiala Zakir foo leen gis-gisee ñoom ñaar ànd bu rafet la yàlla yàlla dëgëral ko ci barke waay waaw kon su ma defee noonu ñi si des ñëpp rek tudd naa leen naa ñëpp waaw tudd naa ñëpp alhamdu mutlaxan li zaatil baari suma salaamuna ala almuxtaari lazi bi nicmatihi tartiimu saalihaat wa salaatu wa salaamu ala asrafi almursalin saydi alwujudi saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim saxru ramadan al mubarak di weeru yërmande di weeru taxe di weer woo xam ne promotion la ñeel mboolem ku bëgg yàlla mboolem ku bëgg yàlla jéggal la waaye mboolem ku bëgg a jege yàlla ñun nag ki ñu ñun ñu toog fii tey ba ràññee dëgg-dëgg dana may wóor ci biir yàlla ki ñu may tey ñu am tawfiix toog fii tey mën a dund yàlla boobu ki ñu may tey ñu nasoo arwaaxu yëpp dajaloo fii nii tey dajee fii di xoolante ci yërmande soppante benn góor la ci biir góor ñi góor gi nga xam ne tànneef la ci biir jëmmi yàlla góor gi nga xam ne tànneef la ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ki nga xam ne Cheikh Tidiane Sarif radiyallahu anhu tànneefam la ki nga xam ne mooy yërmande yàlla ma ni bu ko kenn tayal ma ni wax leen jërëjëfee Baye Niass la in sakartum la azidannakum yàlla nee na su ngeen santee ma dolli leen te ñun ñëpp ndollee ko rek lañ bëgg te nag kii sant da ngay sant ki la gën a jege ki tax nga jege yàlla muy Mawlana Cheikh Ibrahim ma ne wax leen jërëjëfee Baye Niass suñ ko dee wax dangay faral di wax ne ñi ci gën a jekk te ñëpp ci jekk waaye borom kaala yu rafet yi borom dara mbubb yu rafet yi bàyyi mi tax ñëpp xool leen bëgg leen sopp leen bàyyi mi tax nit ñi fàtte seeni bopp fàtte seeni askan jubbu leen bàyyi mi leen may bayre ci àdduna may leen teraanga dafa leen yëkkati ko ñoom bàyyi mi leen feeñal ba ñëpp gis leen mooy Cheikh Ibrahima ma ne waxal leen jërëjëfee Baye Niass alhamdulilah ndax baay moo ne fe ruuxul xubbi suma suwaayihi fa tawran yu xayyi wa tawran aynu xaatili gis nga ku bëgg Cheikh Ibrahima du ngóorom du juddoom du jàngam du askanam bàyyi la foog mu bëgg ko amul kenn ku ne man maa bëgg bàyyi bàyyi bëgg ma déedéet baay moo namm ci moom mu bëgg bàyyi dafay nii ruugul xub bii man maay kii bëgg ci mboolem xol yi man Cheikh Ibrahima waaye nag man maay kii bañ képp ku ma bañ baleen ko du man la maa namul bëgg ma kon képp ku bëggul Cheikh Ibrahima baleen ko bàyyi moo bëggul moo bëggul mu bëggu fa tawran nag man bàyyi maay kii rey wa tawran tabal maay kii xam ne man maay kii dekkil loolu nag dégg-dégg la laaj képp ku jokk ci xadara yàlla bi Mawlana Cheikh Ibrahim la waaye képp ku dagg ci xadara yàlla bi rek Mawlana Cheikh Ibrahim la fa inni rahmaniyatullahi inda man yuhibbu wa naaru li taridil mujadili ma ne waxal leen jërëjëfee Baye Niass lu fi nit xam kenn xamul ko Baye Niass la law sittu ama faydahul basita wa adrakuhu asraruhul muhita su ma nekkoon man Baye Niass adduna bi ñëppay xam yàlla Cheikh Ibrahima Niass fii ku fi xam yàlla Baay Ñas la ku jokk si Cheikh Tidiane am ay tëbb Baay Ñas la ngëneelu yàlla bi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass la kon dafa jot nit ñi xam ne affaire bi Cheikh Ibrahima Niass la ñu ngi ndokkeel képp ku fi teew di ko wàcce wàccuwaayam danaay wax ne ñu ne saxru ramadan bii ñu ne jéng nañu seytaane borom xam-xam yëpp loolu lañ wax ñooy jege nañ seytaane takk nañ ko ay seen ma ne firi leen firi bi mu leer bu dee jege nañ seytaane tribunal mi ngi ba tey lu leen ko yóbbu ñu na seytaane ñu ne jege nañ seytaane baal fees ñu ngi naan ba tey lu leen koy def la ñu ne seytaane ñu ne jege seytaane boo liggéey ci kër yi ñi ngi mbaxal julit ñu wooruñu ñu ne jege nañ seytaane ban seytaane la dellu ci sa nafsu bi yow du seytaane boobu seytaane bi yow la sa su boobu xeexal ak moom bàyyi nee na dafa am xooru xam ak xooru arif xam bi day xiifal moom dafay sàkku àjjana dafa ragal safara bàyyi nee na sama taalibe loolu taxu koo jur bàyyi nee na xooru arif mooy lan fexe loo xool gis ci yàlla bët ba war na fexe loo dégg-dégg ci yàlla nopp boobu war na fexe loo ndokki na ko ci yàlla bakkan boobu war na fexe loo xaatil xaatil ci yàlla boobu xel war na fexeel sa xalbu bi lu muy yëg na yëg jëmmi yàlla ji xol boobu war na fexeel sa xel mu biir lépp loo ci wax mu doon luy jëriñ di jëriñee loolu war na fexeel boo yëkkati na yàlla tax booy dem di seeti nit na yàlla tax booy jëflante nit na yàlla tax su boobaa lii mooy wooru aarif sa dëgg dëgg kon ñun bu ñuy war dañuy joor dañuy war ngir sant yàlla ndax aarif bi moom war na ca aalamul arwaax yow ma arastu bi rabbikum xaalu balee foofu la war yi amoon foofu lekk amu fa naan dara dara amu fa te bàyyi foofu la ñu sànni ci xar yàlla bu sell boobu la ñu yóbbu kon ñi ngi sant Mawlana Cheikh Ibrahima bu baax a baax maa ngi ndokkeel képp ku fi toog di ndokkeel muqaddam bi fi toog di ndokkeel talibi yi nga xam ne itte moo leen indi bëgg bàññis moo leen indi njub moo leen indi dañoo ñëw rek pour wax ni bàññis dëgg la dañoo ñëw rek pour dajaloon na bàyyi rek moo fi ne dañoo ñëw rek pour wax ni nit ñi xam nañ bàyyi xam nañ li bàyyi indi bàyyi di wut sëriñ boo xamante ne si da ngay ñëw mu lay dig àjjana bàyyi ndig taalibeem àjjana waaye dana la jox xam ne da xam ne dugg nga àjjana te deewoo ko kookoy Mawlana Cheikh Ibrahima ñu ngi fayee ñu ngi des ci Baye Niass ñun gëm nañu bàyyi ñu bàyyi defal keneen ku mu ko defaloon nga jàpp ko alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu damay wax ni Mawlana Cheikh Ibrahima li mu woote mooy taalibe ak muqaddam yëpp nekk benn lii rek moo ñu dese bu suñu ñaani yàlla dana ko nangu suñu nekkee benn yéen man yàlla dana wàcc ñun suñu nekkee benn lépp lu ñu bëgg dañ ko am ndax suñu sëriñ dëgg-dëgg mooy sëriñ bi nga xam ne moom mooy sëriñu sëriñ si di Mawlana Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass wa bashiri saabiriin الذين إذا أصابت هم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون